والقلم وما يسترون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 نعمة ربك بمجنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم barke borom Daaru Muxti mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo beeg ziyaara bi ki fi toog toogaay ku tedd ki xadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba di sëriñ Muntaxa Bachir ñuy ñaan suñu borom yàggal ko fi te ak njabootuk sëriñ Touba gépp di nuyu ak ki toog toogaayu borom Daarul Muxti mii sunu bunt ci sëriñ Touba muy sëriñ Basiru Anta di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu borom Daarul Muxti gépp nuyoo boobu nag dañ koy teg ci loxol sëriñ Amsatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbakke di ziyaare bokk yépp man samay wax du ci bari li may wax mooy murid yi ab communité la ñu mbooloo lañu ay million la ñu kenn nit jóg dévier leen tooñ leen loolu yi nag man moom laa bëgg mu saafarawu te yàgg naa koo xeex su fekkente ni Omar dafa ëpp doole yoonu murit dana nu ko xam man daal lenn rek laa bëgg mooy la justice muy yoon li nga xamante ni moom lay teg ku tooñ mu teg ko Omar ndax ba ma juddoo ba tey mag ñi ma mag maa ngi doog a gën dégg ku taxaw ni Serigne Touba nekkul ci sama xol sëñ Tuubaa bu nekkul ci sab xol war nga koo mën a nëbb maa ñi ma mag noo ngi doog a dégg ba yoonu murid sosoo ba léegi ku taxaw wax ni sëriñ Touba li mu bind c'est pas parfait matut dañ ko war a defaraat loolu maa ngi koy doog a dégg ma bëgg nag nun murid yi nu taxaw ndax li tubaab di di wax ni l'impossible n'est pas mouride murit yi tëlewuñu dara la preuve en gis ngeen li ma jàkkaarloo ci ay caméra sëriñ am satu ñeent fukki at ci xatal nañu yoonu murit ci média yi ba sa waajur Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla ko sunu borom fayal wax wax ñoom waxoon waaye tey gis ngeen les caméras te lépp ay murit ko moom may sàkku nag ñu takku mbooloo moo xamante ni bii danañu aar yoon wi dana nu aar dëkk bi dana nu aar njabootu sëriñ tuubaa gi ndax li ma wax ci média yi murit yi tëlewuñu dara dinaa ci joxe benn misaal muy jumaay tuubaa ji jumaay Touba bi ñu koy tabax tuubaa amul forage amul ndox fan la doon jëlee ndox mi ñu ko doon tabaxee Cheikh Mahamadul Moustapha yàlla na ko sunu borom fayal moo wutoon ay mbandi simon yu mag bu nawet jotee fu ab déeg taa ci Sénégal murid yi dem wut ay ndab dem root ko ñëw sotti ko ci mband yi bu nooree moom la ñu daan tabaxee am na benn journaliste Magalu Touba 1956 reportage bi mu doon def en français bi bi mu jeexalee ma ngay wax nii du ma génn tuuba mukk te rendre ma hommage delloowuma njukkal les 60 000 murid booba nee nañu 1956 murid yi 60 mille la ñu woon mu ni ñoom day danaan leen rendre omage ndax seen tabax gi ñuy tabax pyramide ya nekk Égypte lañ ko mën a méngaleel ak cathédrale yi nekk Occident mu ni mu a murid yi day ñu la nature amuñu ay groupe amuñu ay lenge amuñu ay bur ay ay ay ay li jaxase ciment nu ñu koy waxeet euh, li ñu def lépp seeni loxo lañ ko defee te loolu c'était en 1956 sept ans après le sëñ Fallou doogale eggale jumaa ji kon li may sàkk mooy Omar Diagne mii daal na yoon jóg def li war su fekkente ni daf noo ëpp doole nag nu xam te loolu sax mënut a nekk yoonu murit dara ëpp ko doole di sant njabootu Serigne Touba gi nga xamante ni teew nañu ngir lii nga xamante ni yëkkati nañ ko jëme ko ci seen maam am na murit yooyu nag sëñ Touba desu ko xulool man damay xulool sëriñ Touba damay xeexal Serigne Touba bu jaree joxe bakkan damay joxe sama bakkan ngir Serigne Touba bu ma dee naa dem sawar maa xam kon Serigne Touba kenn du ko xeexal giñ naa ci darajey borom Daaru Muti Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi muy nekk ci suuf ku taxawoon ni bindum Serigne Touba mi baaxut dañ koy defar la mu waxoon ni murit buy dox kenn ku nekk sañ naa doon sab sëriñ waaye murit bu tëdd ci ak jaat koo ni diway sab sëriñ bu ma noonu jóg du fab aw yat joosi lay fab waaye wallahi alazim sëñ Abdoulaye tey bu fi newoon waa ji may bañ a tudd aw turam taxaw ni mbindum sëñ Tuubaa bi waxu fu mu nekk dana ko fekk maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen